rahim alhamdulilahi rabil alamin salaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi dawi ridwani wa tamkin yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen web tv Al Azhar Touba ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare di leen balu aq di leen balu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mboole ñun ñëpp jéggal suñu bàkkaar te xiir ñu ci njub te saxal ñu ci ci barke Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul mbokk yi Alasar Touba ñëw na ci seen émission spéciale gàmm tey ñu ñëw fii seet si Serigne Bassirou Touré mi nga xam ne du ku ñuy présenté présentéti kenn moo xam ci biir réew mi la walla ci bitim réew ñu ñëw nag fekk ko fii ci këram fas yéene waxtaanee lu jëm ci euh, xasida yi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, fas yéene ko waajale gàmmo gi màggale ko gàmmo gi kon sëriñ Bachirou euh, ginnaaw bi ma la nuyoo ziar la maa ngi lay bàyyi nga euh, nuyu mbokki taalibe yi ñu doog a ñëw ci laaj yi nga xam ne tànnoon nañ ko bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alqail fi muxkami tandil wa dakirhum bi ayaamillah inna fi thalika al ayatin li kulli sabarin wasalaatu wasalaamu ala man unsila alayhi wa innaka la ala xuluqin azim wa radiyallahu wa radiyallahu an qadimihi alxayil mubaaliqun fi matihi kaman damas wa mutunibun fihi yura kaman ramas maa ngi tàmbalee sama samay kàddu ci sant sunu borom tabaraka wa taala di wax bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla mi nga xam ne moo wax ci alxuraan ji ne yorante bi del fàttali nit ñi ayamullaa ayamullaa nag mu fassiroon yi nee nañ mooy bis yi nga xam ne suñ borom da cee xéewale ay jaamam waaye maa ngi julli di sëlmal ci ki nga xam ne ci moom la suñu borom wàcce wa innaka la xalaa adim yow yonante bi de yaa ngi ci njobax taluk kaweeg rafet jikko nga xam ne loolu aw tàgg la ci moom moo tax sëñ Tuubaa ne lil muntaxaa in qaada sana un jayid fii suuratil xalami ma sanadu aw nixma sayidu sëñ Tuubaa nee na yonent bi sun borom tagg na ko aw tàgg wu rafet ci suuratul xalam mooy wa innaka la ala xuluqin azim julli googu nag mooy julli ci yonent bi yàlla nekk ci moom ak ñoñam ak ak xadimam bi nga xam ne moo ne mubaalixun fi matihi ka man damas wa mutnibun fii yuraaka man damas sëñ Lamine maa ngi lay delloo nuyoo di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye en même temps di nuyu mbooleem mbokk yi ñu seetaan ci seen euh, euh, site internet wala seen euh, ci Al tubaa Touba point com nuyub lislaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Bachir. ci euh, delloo nuyoo bu am solo boobu ak ubbee googu nga xam ne def nga ko euh, sëriñ Mouhamadul Bachir defe naa ne sëriñ Touba euh, ku bëggoon a sukkandiku ci ay xasiidaam yi nga xam ne nii ci la tagge yonent bi sallallahu alayhi wa di ci di ci gàmmo yaakaar naa buñ gàmmoo ba ci suba sa ngay tàmbali jël genn xasiida ba déwén ca gàmmoo ga ngay door a àggal xasida ga wala doo ko àggal mhm. ndax ni mu ni mu ni mu xóote ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu koy détaillé ak ni mu koy tënke mhm. juñu nga léegi ci bayit wu am solo mu baalixun fii madihi kaman damas wa mut nibun fii yura kaman mhm. képp koo xam ne nii yaa ngi det jotal nga ba yaakaar ne yaa ci nekk ci tagg yonente bi salaam fekk na cëkkal nga koo xam ni itam détaillé nga ba yaakaar ne yaa ca nekk itam da fekk la kon da ngaa régimé rek. Mm-hmm. waaye kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mënut a jot aw taggam. Mm-hmm. Euh, tey nag ñu ñëw seet la nga tànn xasiid ak raaya yaa ko tànnal sa bopp ne nañ ci waxtaan ma bëggoon a xam nag solo su lu taxoon nga tànn xasiida googu ndax dafa am benn particularité ci xasiida yi walla. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Amin mm, danaa sawar ci tontu laaj boobu. Mm. ndax inna li kulli maqaamin maqaal jamono ju ne tamit jamono jooju am na lu mu laaj dañoo toll ci jamonoy gàmmu sëriñ tubaa defar ay xasiida yoo xam ne ni da ko daan gàmmu sëñ tubaa dafa am ay jamono dafa warul boxam gàmm ko jot mu defar ak xasiida ngir gàmm moo tax sax ci xasiida gi ma tànn muy xasiida ak raaya ci biir sëriñ tubaa naan lahu alayya li wajhi llaahi daynu sanaa mustahzanin kulla aamin yow ma yuxtaaru man kat warul naa ngir jëm yàlla warul naa yonante bi at mu jot bori tàgg nga xam ne kon at mu jot rek bu gàmmu ñëwee rek mu defar ak xasiida goo xam ne xasiida gu rafet la wax ndax mustahzanin la wax yow ma yuxtaaru kon mooy bisu gàmm ga loolu boo demee ci jës bu wax na ko fa lil Mustafa allati turaam lahu salaatun wa salaam ma am tiddaa yi kulla am rumtu min al mukrami ba tey logique boobu loolu mu waral boppam moom la ci wax mm-hmm. feneen sax mu ne zakatu mathil Moustapha fi kulli amin mm-hmm. waajibatun alayya daynan bil islam boo demee ci futuhul makaram mm-hmm. nga xam ne ci at moomu mu defar futuhul makaram at moomu la way raaya mu ne asakay tagg yonent bi warul naa ko at mu jot mu war ci man muy boy bor boo xam ne dafa gàddu ci loos waaye dellu wax feneen ne lil Moustapha al karim fi kulli sanatin am daahun tura mustahsana warul naa yonent bi at mu jot ay tagg yoo xam ne day doon ay tagg yu rafet mm-hmm. lahu aliyal mathu kulla aamin mm-hmm. min yawmi hada ila ximaami bi muy defar xasida gi ne bis ni ko tey ba keroog may sàngoo suuf at mu jot warlul naa genn xasida mm-hmm. waaye nag lii ma wax ni yëpp nañ ànd ci ak xasida gu ñuy wax fathul fata fii matil muftah ca tarjumaan ja lu fata fii matil miftah sëñ Tuubaa lu mu wax ci tarjumaan ja bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lati jaxala sayyidina muhammad salallahu taala alayhi wa afdal al maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def sayyidina muhammad mii ki gën ci mbindéef yi wa jaxala tariquhu afdal taraayiq mu def ngir mii yoon wi yonte bi sóobu muy yoon wi gën ci yoon yi wasalaatu wasalaamu alayhi wa ala wa sahbihi masaariq julli ak sëlmal yàlla nekk ci moom ak ñu ñam ak saxaabaam bi fa yaqulu xaadimullahi wa rasul arraji minhum arrida wal xabul mu ne xaadimullah kii liggéeyal yàlla di liggéeyal yonent bi yaakaar yàlla ak yonent bi wala yaakaar ci ñoom ngërëm ak nangu kooku mooy kan mooy ahmad ibnu muhammad ibnu habibullahi mbakki yi daal la joxe turam na xafisuhu wa ahlaahu alxafisul aliyu li mu bëgg a wax nag mooy lan lamaa man allahu taala alayya bi mahabatihi wa mahabati rasulihi sallallahu alayhi sallallahu taala alayhi wa sallama xata iltisamtu waftarattu xalaa nafsi fi kulli aamin an aqula xasiratan fi yowmi almawlud fi yowmi almawludi almashhuuri fi rabihi mu ne muy muy muy bisub gàmm waaw mu ne ba ma yàlla wërsëgalee xéwalee ma bëgg yàlla bëgg gu mat sëkk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gu mat sëkk ba ma warlul farataal sama bopp at mu jot ma wax ak xasiida ci bisu gàmm gi gàmm gi xam ne ci weer rabi la ame waaye na xasidi googu mu rak tabatan xaalaa xurufi abaja da xaw a sa xattee kalama na saxa fada xaras da saxasa saxasa nee nag ñu dem ba sama sama xel nag àgg ci nag xasid yooyu ma def ko taxmiis ma juróomeel ko ngir mu mat kon loolu day war ni sëñ bi dafa waraloon waxam at mu jot mu defar genn xasida mhm. gàmmoo ko mhm. xasida gi ñuy waxtaan bëgg waxtaani muy raaya mhm. ci la bokk maxadamaatul am daa ci la bokk jës bu ci la bokk mimie ci la bokk loolu nag ci njëlbeenu sëñ bi la waaye nag sëñ bi daf mel ne li mu demee ci géej gi ñu bisiwaat changé na stratégie loolu xëy na yenn jamono dana ci dellusiwaat sëñ Lamine macha allah jërëjëf ñu gis ne kon sëriñ bi daal dafa tànnoon ay xasida yoo xam ne nii dafa am dafa warloo dafa warlu loon boppam bor mhm. bor boo xam ne nii borob tagg lay doon ci at mu nekk mhm. at mu nekk bisu gàmm bu jotee rek mhm. mu warlul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn ci xasiida gi koo xam ne nii moom lay gàmmoo kon nag bu ñu waxtaanee raaya ci weeru gàmmo kon am na munaasaba am na munaasaba bu baax a baax ndax am na foo xam ne tam nee na ala man alayya wa lastu sadi lahu kulla aamin hadaya madi macha allah loolu lu am solo la kon léegi euh, ginnaaw xasida googu lañ tànn kon dañ lay bàyyi nga dikkal ñu ci taarixu xasida gi jërëjëf euh, Cheikh Mouhamadul Amine hmm, taarixu xasida gi moom daanaka sëñ bi moo ko waxal boppam raaye gii sëñ bi moo ko présenté boppam ne mooy saadatul muridina fi am daaxi xayri mursaliina moo tax diwaan bi mu nekk sax ñu koy tuddee diwaanu saadatul muridina fi am daaxi xayri mursaliina mu ne xasida gi abdullahi wa xadima rasuli sallallahu taala alayhi wa sallam muhammad ibnu muhammad ibnu habibullahi moo ko def kañ la ko def fan la ko defee mu ne dawwanaha fi maskanihi tuuba xarasaha allah mi ngi ko defaree ci dëkkam bi ñuy wax tubaa yàlla aar ko ba noppi wala yàlla na ko yàlla aar bi jaaxil mamduuhi sallallahu taala alayhi wa sallam kañ la ko defar mu ne xaama ahada xasara wa salaasa atin wa alfin min hijrati man lam yuskanil mu dawinu fi maskani salik nee na maa ngi ko defar ci atum bi junni gàddaay bi amee junniyaat ak ñett téeméer ak benn mil trois cent onze ci dëkk bi nga xam ne sancu ma ko lu dul jaamu yàlla ak fas yéene liggéeyal yonent bi sallallahu muy Touba kon xasida gi sëñ baa ngi ko defaree ci Touba gu njëkk mooy sancub Touba mel na ne ba mu sàncee Touba mhm. ca euh, Wasasin mhm. dox euh, ba ay tollu juróomi at mhm. euh, nga xam ne benn at da nga ca tegaat at ba ca topp da jësi mu dem ci géej ga ci la bi defar xasida raaya muy téeméeri bayit ak fukk ak juróom-ñaar waaye nag raaya ab résumé la ab synthèse la résumé la ab synthèse la loolu dana leer gis nga sëñ bi dafa jekk-jekk wax ne ci biir xasida gi sëñ bi di way yonte ba ci yàgg rek mu jekk-jekk wax bayit wu doy waar te bayit woowu kat ci biir xasida gi la nekk mu ne kaxbun wa xasaana wal busayri xat barohon wa kulluhum sixruhu nuurun wa asraarun la ko jiitu sëñ bi dafa wax ne wax wan najibu damay bëgg a leer li tax mu tudd kaxbu ak xasaan ak busayr citi leen ci biir téere bi ndax ñoom dañu am xalaaxa ak téere bi wala déet lu tax waykat yëpp ba waykat yëpp bari mu tànn ci ñett ñi rek ci biir xasida gi lu am solo leeral mu ne wax wa najibu alladi fii wasfi xalq xatihi wa xalqihi wa xuluqihi xiila faf jaaxun wa asharu mu ne yont bi mooy sang bi mooy ku baax ki nga xam ne ci melal physique ak melal ay qualité muy jikko bi ak yaram wi waxees na ci ay asjaa ak ashaar asjaa wesara ko moom ashaar waaye ko moom waaye xoola baat bi mu indi asjaa ak ashaar pluriel la Mhm. waaye bayru ci topp rek mhm. mu indi singulier baat boo mu faratu baat yooyu mhm. waaye walam yeji min dawil aflaaxi min dawil iflaaxi wal bulaxaayi bi sajxi wa chiri mimma xaasa mixsaaru mu ne waaye nag wax nañ ay wesaar yu am sacco wax ay way yu bari ci yonte bi waaye nag ñi am balaaxa ñi éloquent ñëpp seen way yi liñ ci indi ci sàccu seen way yi liñ ci indi amuñu sax indi dixième wala bu doon fukk indi wuñ benn ba moo tax mu ne ahlul fasaxati nag ñi am fasaxa turan mbooleem seen bis sanaama daxon ñoom ñëpp kañ nañ yonent bi di ko tagg waaye ndekete walay sa yutda ko bi akwa bi tayaaro ni ñu ko mën a waxee géej tànk ci kook jeexalu ko bi sëñ bi waxee lii ba noppi nag mu jékki-jékki tudd ci ñett nag kaabun wa xasaanu wal busayru xat baruhu waaye wa kulluhum siiruhu nuurun wa asaaru kaabu ak xasaan ak busayru ñoom ñett ñi kat feej fees nañ feeñ nañ ci tagg yonte bi waaye ñoom ñooñu kenn ku ne way yi nga way yonte bi ay leer la ay secret la lu tax mu indi kaabu indi xasaan indi busayru bàyyi ñu ci des xasiidi gi di raaya sëñ bi da ci def résumé ñetti xasir yoo xam ne ñetti ñi kenn ko dañ koy way benn nañ njëkk ci kaxab kan mooy kaxabu kaxabu moom la wax kaabu ibnu zoyru ibnu abi sulma ci waykat yu mag kuuyal waykat yu mag ñi njëkk lislaam ci la bokkoon baayam neexoon waykat bu mag bu muy tam baayam jàngoon tamit liir ci tiire yi jiitu woon tawreet wala injiil ñu wax ne am na yonent buy ñëw bu tudd ahmad ci jasiratul xarab lay nekk arabi saudite gii lay nekk euh, makka lay nekk dana gàddaay dem madina baayam dem ba jamono mu gént loolu gént gu leer naññ waaye mu leer ko ne ko moom loolu du ko fekk mu dajale ak njabootam bi mu tollee ci sukuraat nee na damay waaj a génn àdduna waaye maa ngi leen di dénk am na ab yorante buy ñëw bu ñëwee yéen ñëpp na ngeen ko topp léegi am na frère mbokkum kaax bu ñu daan wax bu jëyru bu jëyru moomu bi yonent bi feeñee mu tuub nekkub julit kaax bu nekk ca la nekk Kaxbu nekk ci kéefar gam ne woon hmm. mbokkam mi fararam bi dugg gi mu dugg ci lislaam hmm. metti ko mu def ci ay bayit ba ŋàññaale ci sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, bi nag euh, Kaxbun googu euh, maanaam nekkutoon ci diine lislaam nekkutoon ci diine lislaam waaye baayam joxoon leen ndigal neen am na yonent bi ñëw na ngeen ko topp yonent bi ñëw na bu jëyru frère am mhm. ñu bokk ndey bàyyi bu jëyru moomu mhm. tuub na dugg ci diine mhm. muy ngàññ bu jëyru moomu ci dugg gi mu dugg ci diine ba ngàññaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kax moom kax ba yonent bi joxe ndigal nag ne kax bu fu ko julit gis na nga ko rey deretam dagan na kax bu nag tàmbali wa daa xat bi xil xat lool di làqatu ndax xam na ne yonent bi li mu leen digal fu ñu ko gisee rey ko yonent mu continué di làqatu continué di làqatu ginnaaw bi fett màkk amee nag ida jaa nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja saar woowu nga xam ne keroog bi mu wàccee am na ci saxaaba yi ñu jooy Omar dafa jooy ñu ne ko looy jooy Abdullahi ibnu Abbas dégg na ay saar woowu Omar dafa fonkoon Abdullahi Abdullahi ibnu Abbas muy gone nit ñi di ko balaame naan ko waaw xale bii lu tax nga fonk dafa mel ni xale bii nga jël teg ko sunu kaw doom yi Omar ne leen xale bii dafa am xam-xam bu nekk ci moom bu nekkul seen doom yi Omar dajale bis jataay magi saxaab yëpp ne fa mu ne leen damaa bëggoon ngeen wax ma Issa Dia lu ngeen ci dégg ñu firi ko lañ ñu firil ko lañ dégg ci kaw rek fattu màkkataag ak nit ñi dugg ci diin def ak maas mu laaj Abdullah ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas ne leen saar wii muy ñëw di tàgga yonente bi mu ne lii tax ma fonk ko ba fattu màkk boobu amee nag jasirtu arab yëpp lislaam dugg fa kax bu nag gën a tumuranke parce que len daan làqatoo amoon na dëkk yu daan dugg foofu xëy na jullit yi bëriwul waaye léegi l'islam gën na loo nag ci jasirtu arab bind ab leetar frèram boobu bu jëyru ngir bëgg ñëw ci bi tuub doonub jullit yàlla ubbi dënam ci lislaam mu agsi ba ci madina kaalawu masque wu xamuñu ko bi mu agsee ba ci yonent bi mu toog ne yonent bi ndax ku ñu wax kaax bu te tooñoon la ba nga wax ne nañ ko rey bu ñëwoon fii tuub ndax danga ko jéggal yonent bi na ko waaw mu sànni kaa kaala ga tàmbali xasiiraam ga baanat soxaadu fa xaal bi yow ma mat boolu ba xasiir ga àgg juróom benn fukki bayit la def ca xasal melal ci ay giléem jégglu ca tagg ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xasida googu nga xam ne saraa ko rek def nañ ci ay téere yu bare bare def nañ ci lu bare bare ci tafsiir ak tasliil ak taxmis ak yépp def nañ ko bi mu agsee nag ci bayit wii bayit wi ba ban bayit dafa agsi ci unbixtu anna rasulullahi aw adani waaye wal xafu xinda rasulullahi mahmulu man kat dañ maa informé wax ne yonent bi may tëkku waaye yonent bi kat moom jéggalaa kon la continue xasida ga ba àgg ci inna rasula la sayfun yustanau bihi yustadaadu bihi muhannadun min suyufillahi masdulu bi mu agsee foofu rek yonent bi dafa jug fa mu toogoon ñokke subbi mant moom solol solol ko kaaba waaw xasida googu nag sëñ bi sax def na ko tatmim tàmbalee ko baanat soxaadu xalbin fiihi tansil tanzilu bi yum ni lësi li lësi yàqlihi taxsilu sëñ Tuubaa bi mu agsee ci un bixtu anna rasulullahi aw xadani wal xafu xinda rasulullahi maamulu moom dane un bixtu anna rasulullahi bacharani wal bichru xinda rasulullahi mahmulu mm-hmm. foofu feneen la waaye ci xasida gii ñuy wax nag xasida bayit wi euh, kax bu tolloon ba yonent bi simi mant bi jox ko kooku mooy baytul xasidati inna rasula la sayfun yustadaau bihi muhannadun min suyufillahi maslolu wax nañ ne burdutu boobu ko yonent bi joxoon ginnaaw gi Muhaawiya moo ko jëndee ci moom ci xisrina alfa darham nga xam ne xulafaa bani umaya ñoo ko daan sol mm-hmm. wax nañ sax bu njëkk ba daa dañ jël yére boobu sax di ko sànni ci sawara te du lakk hmm. ndax lim jógee ci yoon bi sallallahu alayhi am ñu ne déedéet yonent bi mbub moomu ñu ngi ko jaayee Muawiya arbaxiina alfan hmm. am na yenn wax yu ci yu ci am hmm. léegi nag bayt woowu nga xam ne mooy baytul xasida gi moom la sëñ bi jël indi ko ci biir na nga xam ne bayt woowu daanaka mooy xasida bàyyi na subhaana ndax fala ko yonte bi joxe mànt ba mm-hmm. man ne na wax jooju moo ko gën a dugg mm-hmm. bay doo wala sëñ bi jël indi ko indi ko def ko ci raaya mm-hmm. def ko tarnim inna rasula la wax la sayfun yustadaadu bihi muhannadun min suyufillahi battaadu raaya baa tax kon ndekki xasida kax bu googu baadar boobu raaya synthèsem la xataay waxtu yi moo tax duñ ci mën a dugg détaillé ko mot par mot waaye bay doo wa rek nga xam ne mooy baytu xasida ci baanat sëñ bi indi ko nag ci biir raaya kon boobu benn ngoo kon looloo tax mu tudd kaabu ñu ñëw ci xasaan xasaan mooy xasaan ibnu saabit al ansaar moom la daan wax saahiru rasul waykatu yonent bi sallallahu alayhi wa ci ba ansaar la bokk bokk ci bani najaar nga xam ne ku doon fan la lu jiitu muy dugg ci lislaam daana tagg buur yi di am ci ay may ci ñoom ba yonent bi sa sama gàddaaye nag ñu Madina mu tuub dugg ci lislaam dund na cent vingt ans téeméeri at ak ñaar fukk juróom benn fukki at yi ci jaahili la ko def juróom benn fukki at lislaam moom la yonent bi naan uxuju wa ruuxul xut si maxaaka yu ayidu ko yëfër yi bu ñu daan ŋàññ yonent bi yonent bi daan kax bu yow del tontu ñooñu te xam ne jibril mi ngi ànd ak yow moom sax moo wax bayru si woo moom moom xasaan xat xulixta mubarra'an min kulli aybin ka annaka xulixta kama sax yow yonent bi dañ laa bind nga set wecc ci bépp ayib daa mel ne ba ñuy bind bañ lay bind dañ laa bind nim la neexee léegi nag xasaan moomu dafa am xasida gu am solo xasida googu synthèse ba moom la Sëñ Tuubaa indi ci biir raaya xasida ga mooy gan mooy bi gàddaay bi amee euh, juróom-ñeenti at dafa am wafdu Bani Tamim ñu jógee ci Bani Tamim def délégation ñëw ci yont bi ña nga ànd ak ku ñu wax xataarit ibnu ajib ibnu saarata ànd ak kilifa yi Bani Tamim yëpp ñu ñëw Madina dugg ci jàkka ji gis yont bi ne ko yaa Muhammad jiix naa ka lii nu faa xiraaka tey daal dañoo ñëw jogante ak yow pukkalante ak yow fa adin li naa shahirina bi xatibina sunu waykat ak sunu orateur da nga leen jox ndigal ñu way am ñu jóg ci yéen way ah def discours tontu ñooñu mm-hmm. yonent bi jox leen ndigal moo tax kuy woote jëm ci diine da war a yor lu bare bare ndax ku ne dina la dikkee mm-hmm. ma ne ci facette ak façon yu bari xataarit mm-hmm. xataarit ibnu ajib daal di jug def discours bu rafet. Mm-hmm. daal di toog yonent bi jox ndigal ku ñu wax Saabit ibnu Xays. Mm-hmm. ibnu Samaas si saxaaba yi la. Mm-hmm. ne ko jugal nga tontu ko mu jug def discours bu rafet moom itam. seen waykat ba ñoom bani tamit waykat bu élégant bu mën a way ku ñu daan wax Dabar Xaan ibnu Badr. jug moom itam tàmbali ak xasidaam gi. naxnul kiraama. fala xayya yuhaadiluna. minal muluku. wa fii naa yokk si mu rëbb ñun kat ñooy way tedd yi de amul benn gox nag amul yenn nit ñuy ñuy gam-gam leeg ñun amul ko solo ñun de ndax ñun kat ay buur lañoo ñoog dañuy xeex ba dàq di séddoo koom mi wan ne kon ay girée lañ kuñ xeexal gaña la séddoo xéwal ga yonent bi ne ana xasaan ñu ne eh, ana xasaan xasaan daa mel nekku fi xasaan newu fi de yonent ne wooy leen ko ñu woo ko xasaan ñëw waaja wax xasida ga waxat xasida ga xasaan dégg ko xasaan daal tàmm moom itam tontu ko mooy xasida xasaan gi gi ñuy wax inna dawaiba min fihrin wa ixwatihim xat bayanoo sunana linnaasi tattabahu yarda biha kullu man kaanat sariratuhu taqwa al ilahi wa bil amri allati charon parce que ma koy tom naan xaw xawmun isa arabo daroo xadawahum aw aawaloon nafha fii ashyahim nafahum man ñi may waxal nii ñii may tagg nii aw nit la ñoo xam ne ne buñ buñ xeex ak nit lor la kuñ bëgg a jëriñ it la ba àgg ci akrim bi xawmi rasulillahi chiatihim isa tafaraqatil ahwa wa siyawu gis nga ma ngay tontu mhm. waaje bi noonu naxnul kiraam falaa xayu lanaa mhm. falaa xaye yu xaadil mhm. mu ne fa innahum nag aqbalul ahyaa yi kullihim afdalul ahyaa yi kullihim yo saxaaba yi ànd bi ñoo gën ci quartier yëpp ñoo gën ci wax yëpp in jadda binnaasi jadal xawli aw samoho gis nga ni mu tontoo kële xam nga kee dana naxnul kiraama falaa xaye yu xaadilu naa minal muluuk wa fii naa yoq si mu rop xasaan ne fa innahum afdalul ahyaa yi kullihum in samahu bañ waxee lool rek ka jiite woon ka woon tamit ba uh, wafd bani tamim ñu koy wax tamimul aqra ibnu habis daal di jug taxaw ne inna haada rajul la mutaalahu yonent bi daal yàlla may na ko ah moom ki doon def discours ci ay ñoom moo dàq discours ki def discours ci ñun wala saaxiru huwa ashhadu min na mm-hmm. waykatam bii moo dàq waaye suñu woykat bi mm-hmm. te booba woy mooy li nga xam ne moom lañ daan jongante moom lañ jongante ak discours yu rafet ak discours yu rafet yàlla dogal na bi xasaan defee lii saabit ibnu xaysin def discours boobu mm-hmm. ba di tamit ñëpp dañoo mujj tuub dugg ci lislaam léegi nag xasaan xasidi googu mu defaroon nga xam ne xasidi gi la mu gën a ràññi ko mooy lan tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaye nag tagg yépp nag mhm. da ciy taggaale saxaaba yi mhm. saxaaba yi da ciy tagg ñoom ñu ànd ak yonent bi wala sëñ Tuubaa ci biir raay ya tagg saxaaba yi mu indi ci jiir mu indi ci lu bare bare lu wax wal aali dani salla alayhi allati fil jahri qaddamahu musalliman tibqa maa yaxwa wa yaxtaaru wal aali ci saxaaba lañ bokk ba tey mm-hmm. man bix si saa seen xat xawaw sarafan mm-hmm. li annahum lil waraa saadatun axyaaru mm-hmm. ñooñu yonent bi daal jox moo leen jox leen ak jagle ñoom ñuy ay sharif ñoom kat ñooy sangu mbindeef yi de waaye nag wa saxbihil xurri saxaaba yonent yi nga xam ne ay sang ñu ne a mu ne man aqraanahum sabaxu saxaaba bi raw nañ seen maas de ñu ne ko a mu ne isbahdahum xaajaroo wal bahdu ansaaru ñenn ñi dañoo gàddaay jóge Màkka ñëw Madina ñenn ñi des ci Madina yonent bi ñëw nangoo jël seen alal séddoo ko ñële sëñ Tuubaa ne lahum ladallaahi lahum ladallaahi tax si sun bi ma safiroo ñoom saxaaba yi daal am nañ ak jagle ngir lañ am waaye xamun na jóobu nag li xaw min fi dujaa saaru ñoom ay biddiw lañ ñeel ñi nga xam ne dañuy dox nit ñi nga xam ne dox ci lëndam la yonent boo xoon ne ashaabi kan nujuumi bi ayihim iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi dañoo mel ne comme ay biddiw bu ngeen ci roy rek da ngeen jub moo tax sëñ Tuubaa ne xumul nujoomi xumul nujoomu li xaw min fi duja saaru mu ne lahum ladallaahi tanwiirun safaahin lan issaayal kullu adnaatun wa akdaaru bi nushi lil xalqi wal imaani xat jubiloo turan wa xafdi llasi ahlatu kufaaru wa safu wal xilmu dahban lil jamihi kama kaanu yudiimuuna taqwan xaysuma daaro xool ni mu leen tàggee nee na laa biir bindee fi ak gëm yàlla loolu ci leen yàlla bind ñoom ñëpp nag ak suufeel li yéefar yëkkati mm-hmm. nee jéggale ak lawet mooy seen jikko mm-hmm. dañ daan saxoo ak ragal yàlla fu ñu mën a nekk mm-hmm. ba àgg ci ne ba àgg ci mm, bay bi nga xam ne nee na fadailu sahbi xindallaahi jalla ala xan xaddiha kalat aqlaamun asaaru saxaaba yàlla ngëneel lañ am ci yàlla nee na xalima mënu ko bind mëne su ko bind ci tënk loolu la léegi nag mu des nag xas bu seyri bu mu wax naa la baytu xasida gëlay kax bu defoon ni ko indee ci biir kii bi mhm. baytu xasaan xasida xasaan googu mhm. fa xasaan jëmaloon indee ci biir raaya mhm. bu seyru bu dafa feebar feer boo xam ne bu doon ci jamono ji mën ngaa wax ne dafa paralysé mm-hmm. am na ci wetam wetam goo xam ne doxul mm-hmm. mu faju faju faju mënut a wér mm-hmm. mu ne daal naa tëju tagg yonent bi sallallahu alayhi wa bu ko defee def ci tawasul ñaan ngir wér daal di tëju tàmbali xasiraam gi burda amin tazakkuri jiraani bi si salamin masajta dam xan jaraamin ma bi damin fa kayfa tunkiru xubban baxda ma sahidat bi alayka xudul dami wa saxami ba àgg ci fa mablaxu l-ilmi fiihi annahu basharun bi mu agsi ci ne xam-xamu yoon xam-xamu doomu aadama daal xam-xam fam mën a yem ci yonent bi daal mooy yonent bi mbindeef la mu gàkk mënut a jàll li des ci biir boobu mënu ko àggale diir bu yàgg mun mënu cee teg dara yonent bi feeñu ko jëxëran raay wetam googu paralysé woon wet gi dundaat ci yëpp dox yonent bi gàgganti ko ne ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim macha allah xam-xamu doomu aadama fa mën a yem daal mooy yonent bi nit la mi def la waaye moo gën ci mi def yëpp loolu wax yonent bi la. xam ne château bu mujj bi. yonent bi yonent bi sallallahu léegi nag sëñ Tuubaa bi mu tuddee Buseyri nag waaye baytam woowu xam kon bayt bayt mooy baytul xasida gi mm-hmm. fa mablaqul xilmi fiihi annahu basarun wa annahu xayru xalqillaahi kullihim mooy bés bu xasida gi ci burdatu sëñ Tuubaa bi mu ne kaxbun wa xasaanu wal busiiru xat baron wa kulluhum sihrun nuurun wa asaaron lu ci teg fa mablaqul xilmi fiihi annahu basarun kon mu def tatmim bëydoo daal ne wa annahu doonahoo xaqlun wa afkaaru xam-xamu doomu aadama fa mën a yem daal mooy yonte bi nit la sëñ Tuubaa nag wa annahu doonuhu waaye nit la koo xam ne nag xel mënu ko xalaat dafa kawe xel mm-hmm. ak esprit wa annahu doonuhu xaqun afkaarum kon ñetti xasida yi mm-hmm. moom la sëñ Tuubaa résumé mm-hmm. ci biir raaya daanaka Cheikh Mouhamadul Amin jërëjëf Cheikh Mouhamadul Bachir xam naa ne jawla boobu nga ñu defar ci taarixu xasida gi man maa ngi koy door a dégg tey dafa mel ne kon euh, ñu bari tey danañ gindiku ci li tax Serigne Touba tudd Kaabu ak Hassan ak Boucherou. ndax tudd leen ci ndax tudd leen ci ak neen rek. Mhm. waaw kon loolu lu xóot a xóot la lu am solo loo xam ne nii faraluma di dégg sax ñu koy ñu koy waxtaane mhm. kon yaakaar naa ne loolu lu am solo la. xam naa kon dañuy euh, yamale fii jotaay bi saf ci beneen jotaay incha allahu kon mbokk yi nga xam ne nii yéen ngi ñu doon bàyyi xel fii ci kër Serigne Bachirou Touré ñu tànnoon xasiida googu di raaya nga gis ne. wax na li tax mu tànn raaya ñëpp dégg nañ ko euh, li tax mu tànn ko dikk na ci histoire xasiida gi itam muy loo xam ne nii man ci sama bopp maa ngi door a xam loolu te yaakaar naa ñu bari euh, tey jii dinañ ci gindiku muy li tax sëñ Tuubaa tudd Kaabu ak Xasaan ak Bushayru yu ci nekk indi na seen histoire andi na am demee andi na ci sëñ bi àddoo ci biir xasiida gi kooku loolu lu am am solo la kon xam naa dañ leen di dañuy yamale jotaay bi fii rek di leen dig daje ba beneen yoon incha allahu Eh, di sant mbokk yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci xarala gi di leen dig daje ba beneen yoon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu